alhamdulilah walsalaatu walsalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man walah amma baad mbokki jullit yi ñoo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla ci topp ay ndigalam ak bàyyi ay tereem teg ko ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak doxiinam ñépp xam nañ ne ci sun yi ñu nekk lu bari ci nit ñi ñu ngi jàmbat néew wërsëg ñu ngi jàmbat cherté dund bi nga xam ne moom la nit ñi dund ñu ngi amuk jaaxle ba àgg ci lenn ci boroomi kër sax ak lenn ci nit ñoo xam ne wërsëg jaaxal na leen tax na bunt bu nañuy fëgg ko ngir am wërsëg moo xam bunt bu lew la wala bu lewut ñàkk googu ak jaaxle googu tax na ba am na ñoo xam ne suñ mënee wuruj wala ñuy koromp wala ñuy sàcc sax jaral na leen sàcc lenn ci nit ñi jëfandikoo riba jaral na leen ko lenn ci ñoom jaral na leen sax waliyaasu billah alal tax leen a naafiq ci seen diine wala ñuy nax nit ñi lenn ci nit ñi sax waliyaasu billah alal jaral na leen tuur dereti nit ngir mën a am alal alal jaral na leen dog sax seenu bokk ñii soobu bunt yu lewul yooyu nag dañoo fàtte walla xamuñu ne sunu borom tabaraka wa jàngal na jullit yi yoon yi nga xam ne buñ ca jaaree am wërsëg wu lew dafa am lu ñuy tudde al asbaabu al jaalibatu lil rizq sabab yoo xam ne ñooy indil nit ki wërsëg yooyu kenn ku ne soxla woon a koo xam ku nekk soxla na koo xam te diine lislaam ji nga xam ne léppam dafa mat bàyyiwul dara bàyyiwul jullit yi noonu te wonu leen sabab yoo xam ne buñ ci jàppee danañ jot ci seen wërsëg kon danañu jéem a tudd li ëpp solo ci sabab yooyu yi nga xam ne bu ci jullit ba jàppee dana am wërsëg sabab yooyu ci li lislaam jàngal bi ci jiitu mooy ragal yàlla sunu borom tabaraka wa taala moo ko def muy sababu su wërsëg mu ne wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja ku ragal yàlla yàlla dana la defal ab génnuwaay maanaam solution ci bépp problème boo dugg waaye mu teg ce ne wa yarzuqhu min mu wërsëgal ko foo xam ne foogewu ko fa woon moo tax al imaam ibnu kasir bi muy firi laaye daf ne wa yarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ay min jihatin laa taxturu bi baali maanaam wërsëgu fa koy jóge nekkul woon sax ci xelam ne foofa dana fa jóge fekk la ko ko yut mooy ragal yàlla gim ragal yàlla borom bi tabaraka wa taala waxaat ne bu fekkoon ne nit ñi nit ñi ci dëkk yi comme dëkk yu rëy yi la wala yu ndaw yi su fekkoon ne gëm nañ yàlla ngëm gi ñu war a gëm ragal ko ragal gi ñu ko war a ragal borom bi tabaraka wa taala ne danaa leen ubbil ay barke ak i xéewal ak i wërsëg yoo xam ne kaw lay jóge ak suuf kon seen wërsëg day day baawaan ba doy sëkk su fekkoon ne ragal yàlla googu am na ragal yàlla googu nag ci jullit bi dafa làmboo ay mbir yoo xam ne mënta ñàkk waaye lépp li koy tënk ñaari mbir rekk la def liñ la digal bàyyi liñ la tere ragal yàlla googi mooy tax nit ki dem ba mën a fab alali jaambur wéet ca lool fàttaliku boroomam bàyyi ko fa ragal yàlla googi mooy tax nit ki dem ba mën a fen mu wóor ko ne bu fenee am na lu mu koy indil ci njariñ lu teew mu yëg ne yàlla dafa xaraamal fen mu bàyyi ragal yàlla googu yi mooy tax su demee ba wéet koo xam ne mën na faa njaaloo ak ku baaxul kenn fekkewu ko te kenn mën na ko bañ a xam mu fàttali ko ne boroomam tabaraka wa taala mi ngi koy gis mu dellu gannaaw ragal yàlla googu mooy tax su jullit bi toogee ci kanam mbokki jullitam ñu tàmbali xuus ci derub jaambur di wax ca moom lu jaaduwut benn mu noppi leen wala mu jóg dem kon ragal yàlla googu day feeñ ci lépp loo xam ne sunu borom tabaraka wa taala daf koo tere jullit bi waaye it ragal yàlla googu daf koy soññi ci def li sunu borom tabaraka wa taala digle li mu digle ci jaamu yàlla yi dana fa feeñ tàngoor wa dana metti lool mar wa mën a metti lool àndaku akub coono waaye du tee waxuma la muy woor weeru koor waaye dana ko booleeg di woor sax kooruk ngàtt nga dana ko ragal yàlla yi dana tax mu tëdd ba guddi tëdd neex lool amaana sedd ba sax metti lool mu jóg jàpp ca ndox mu sedd ma julli ay rakkaay yoo xam ne kenn fekkiwu ko ku naan diw daa baax waaye digganteem ak boroomam rek la kon ragal yàlla googu mooy jaamuloo nit ki yàlla jaamu goo xam ne boroomam la koy defal mooy tax jullit ba bàyyi lu bon la nga xam ne yàllay kese moo tax mu bàyyi ko ragal yàlla googu nag bu dundee ci xolub nit ka loolu moo koy poussé ci def lu baax jëmale ci nit ñi moo koy poussé it ci yàlla yim dégle ci fàggu fàggu wërsëg mu nangu caa jóg def ci li ko war su ko defee tawfiq daal di koy dikkal bu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala problème mu wërsëg moom dootu ko am ñaareelu sabab yi moo di jéggalu jéggalu istigfaar ak tuub foo toll fu ne di jéggalul sa boroom di ko tuubal ndax soo ko yégee ak soo ko yëgul li wér mooy yaa ngi tooñ sa borom kon jullit bi fu mu toll war day tuub kullu bni aadama xataaun doomu aadama yépp dañuy juum wa xayrul xataaina tawaabuun li gën ci ñiy juum nag mooy ñi nga xam ne fu ñu juumee rek tuub noonu la ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuuna laallakum tuflixuun tuub leen yéen mboolem ñi gëm yàlla di dellu ci seen borom tuub goog yi nag njariñam bari na lool ca àllaaxira waaye it ñu xam ne bokk na ci ay njariñam wërsëgu àdduna borom bi tabaraka wa taala moo ko wax digal ko nuux yonent yàlla nuux alayhi salaatu wasalaam mu wax ak aw nitam nee na fa qultu astaghfiru rabbakum nee na ma ne leen eey yéen samay nit tuubal leen seen boroom innahu kaana gafaara li ngeen di bari bari ak bokkaale li ngeen di bari bari ay mooy yàlla tuubal leen yàlla ndax yàlla kat ab jéggalaa kon la yursili samaa aleykum midraara su ngeen tuubee bekkoor gi ngeen nekk bekkooruk taw bu ñàkk wàcc borom bi tabaraka wa taala dana leen wàccee taw bi mu sotti wa yumdidkum bi amwaalin mu dolli leen alal wa baniin dolli leen itam ay doom wa yajal lakum jannatin wa yajal lakum anhaara nee na dana leen defal ay tool fii ci adduna yu naat defal leen ay dex yoo xam ne problème ndox duutu leen koo wax kon jéggalu sunu borom tabaraka wa taala ak tuubal ko loolu lay jariñ dana jëriñ asamaan su sotti doonum ndox muy xéewal dana jëriñ ay alal yu sotti ku lew dana jariñ itam ay doom yoo xam ne yu am njariñ la ñuy doon ndax ba ñuy wax ay doom it waxuñu doom yu bari rek te yareesu leen xamaluñ leen diine jaaruñu siraatul mustaqim waaye doom yu jub defal leen ay tool yu naat te bépp xéewal bu jóge ci suñu borom tabaraka wa taala ci luy génne ci suuf ci la ko jaarale doomu aadama door koo mën a lekk doomu aadama lu muy lekk lu ne rek ci suuf la jaar mu door koo mën a lekk wala ñu liggéey ko ci matière bu jaar ci suuf kon tool yi loolu moo tax mu am solo al imaam mu ne laay jii day daf nuy won ne jégglu tuubal yàlla bokk na ci sabab yi nga xam ne dees na ci jaare ba wërsëg wàcc dees na ci jaare ba wërsëg wàcc moo tax borom bi tabaraka wa taala waxaat na ko ca suuratu Uhud yonent yàlla Hud alayhi salaam wax ak nitam ñe ne leen wa yaa qawmi istaghfiru rabbakum yéen sama nit ñi jéggalu leen seen borom te tuubal ko jéggalu leen ko summa tuubu ilayhi ngeen tuubal ko yursili sama aleykum midraara dana yónni asamaan si yebal ko mu sottil leen ndox mi sotti goo xam ne sotti gu xéewale lay doon sotti gu barkeel itam lay doon wa yazidkum quwatan ila quwatikum seen kattan gi ngeen am ak seen man-man bi mu dolli leen kattan ak man-man mu ne wala tatawallaw <coughs> mujrimin waaye bu leen wan seen boroom gannaaw ndax loolu su ngeen ko defee ay tooñkat ngeen di doon ñetteelu sabab yi mooy wakkiirlu ci yàlla wakkiirlu ci sunu borom tabaraka wa taala yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax nee na su ngeen doon wakkiirlu ci yàlla dëgg-dëggi dëgg wakkiirlu dana leen wërsëgal ni muy wërsëgale picc yi nekk ci asamaan si picc mu ci ne buy xëyee ci am tàggam biir ba dara nekku ci nga xam nga ne picc moom dencul dara fenn bis bu xëyee day dem wut la muy dunde ci bis ba bu jeexee mu ñëw fanaan si jamono yi muy fanaan ànd ak xelam mu dal bay nelaw amut lu mu denc fenn waaye xam na ne wërsëgu yàllaa nga fa te bu xëyee dana ko wutiwaat moo tax bu bi alayhi salaatu wasalaam mu ne taruuxu ximaasan nee picc yooyu dañuy xëy yóbbaale xiif wa taruuxu bitaanan buy gont di ñibbisi fekk biir ba fees na dell kon wàkkiirlu ci sunu borom tabaraka wa taala nee na suñ wàkkiirlu woon ci moom dëgg-dëgg yi kon dana nu wërsëgal ni muy wërsëgale picc yooyu kon wàkkiirlu ci yi ñuy sàkkoo wërsëg ci la bokk wàkkiirlu nag waxuñu bu ñu ko waxee da ngay xëy toog faste say loxo rek ñu ne la lu tax yow xëyoo liggéeyi tey nga ne damaa wàkkiirlu ci yàlla déedéet mooy nga xëy sàkku ji ndax gis nga picc mi mu la joxe misaal kat daf ne la te ruuxu day xëy picc mi day xëy dem wuti biiram jeex takk dara newu ci buy ñibb si indaale biir boo xam ne bu fees dell lay doon kon yow boo xëyee fëggal bunt ya leew insha allahu sag wàkkiirlu ci yàlla gi nekk ci sa xol mu wóor la ne yaa ngi jaar ci sabab yi dagan sa xol nga wékk ko ci sa boroom doo wàcc mu ko te indaale woo loo dunde ca bis booba kon wàkkiirlu gi ñaari yëf la yëngatu ak jëf yoo xam ne ci sa yaram la nekk sa effort sa coono sa liggéey beneen bi ci des mooy nga xam ne sa effort beeg sa coono bi du mooy indi wërsëg waaye sa xol xam na ne sa borom tabaraka wa moo lay indil wërsëg bi kon xol ba la ñuy waaye nag cër yi moom dañuy jëf ku wax ne nag sama xol daa wàkkiirlu samay cër wàkkiirlu kooku moom du dëgg-dëgg wàkkiirlu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofu dafa wax ne law tawakkaltum ala allahi xaqa tawakkulihi la wax dëgg-dëgg wàkkiirlu <coughs> ki bëgg a wax ne xolam ak i cëram dañuy wàkkiirlu kon kooku du dëgg-dëgg wàkkiirlu kooku njuumte la cër yi moom duñ toog fast ñu fast leen projet say loxo ne du ma liggéey ndax damaa wàkkiirlu ci yàlla mu ngi mel ne nga ne damaa bëgg a dem Kaolack wala beneen dëkk nga ferenk laay ci benn béréb ne xëy na mu ne tuuti yàlla dana ma yóbbu kaw la te nanguwoo jóg dem ca fa ñuy duggee oto bu fa jëm nanguwoo wuti paas bu la fa yóbbu kooku du wakiirlu wakiirlu bi mooy xol bi na wékku ci yàlla nga xam ne wërsëg bi ak fu mën a jógee sa borom tabaraka wa taala moo la ko jox ba noppi nag nga yëngu jàpp ci sabab yi ñeenteelu sabab bi moo di sant shukrullahi sant sunu borom tabaraka wa taala kenn ku ne ci nun rek sant sa boroom war na ko ci anam boo xam ne daanaka du dog boo doon xëy ak guddi guddeeg bëccëg sax vingt quatre yëpp nga jeexal ko ci sant sa borom tabaraka wa taala taxul nga jox ko genn wàllu li mu la jox ci xéewal xéewalug li nga yor ci ay cër cër yu la sa borom tabaraka wa taala defal nga di ci jëriñ di dox di dem ak ñëw yori tànk gis ñu nekk ci sa wet yoru ñuy tànk nga yor kàttan di jariñoo sa kàttan googu gis ñu nekk ci sa wet tëdd te yaakaaratuñoo jóg ngay gis di waaxu di demal sa bopp ak ñëw gis koo xam ne balaa dox dañoo jàpp ci loxoom ngay dégg gis koo xam ne déggul dara léegi léeg nga gis koo xam ne sax déggul gisut far boole ko tëdd fa mu tëdd xéewal yooyu yëpp suñ borom tabaraka wa taala defal la ko ba noppi wëlbati ko jox la nag looy lekk looy naan ak looy sol kooku ma ne wërsëg wi kon li na suñ borom tabaraka wa taala defal yéeme na sant ko nag mooy yëg ko moo ci jiitu yëg ne sa boroom moo la defal xéewal yu rëy yooyu nga di ko ci sant sant gi dellu nag ci jëf ya ngay jëf jëf yu baax yi maanaam cër yooyu mu la defal nga def ko def ca lam bëgg ñu def ko ci bul xool ci bët bi lu xaraam bul jottali ko ci loxo bi loo xam ne lu xaraam la bul déglu ci nopp bi lu xaraam tànk bi bu mu waaxu jëm fu xaraam soo ko toppee noonu ba cër yi mat sëkk kon yaa ngi sant yàlla ci sa jëf la borom bi waxoon ne i'malu ala daawuda shukran maanaam jëf leen jëf joo xam ne jëfi cant la jëfi cant du mooy nga dajale nit ñi rek ne tey la cant gi ñi bokk lekk nga toggal leen ñu lekk naan ñu ne cantu diwa ngoog mu jeex waaye cant ga ci sa jëf yi ak sa cër yi ak sa comportement bi foofu la sant sunu borom tabaraka wa taala nekk cant googu nag la borom bi wax ne su ngeen ko defee ma dolli leen xéewal borom bi dee na wa id taadana rabbukum yàlla ci boppam moo yéeneel boppam ne lan la in shakartum la azidannakum bu ngeen santee ma dolli leen kattan gi ma la jox def nga ko fa ma bëgg danaa la dolli kattan sa man-man bi def nga ko fa ma bëgg danaa la dolli man-man sa alal ji def nga ci fi ma bëgg danaa la dolli alal kon dolli goo gi la sa borom tabaraka wa taala di dolli li ko jur mooy cant gi nga ko sant waaye nag su safaan ba amee borom bi tabaraka wa di la defal te doo ko sant wala sax mu lay defal ngay sant keneen ndax léegi léeg ñu dégg ko <coughs> léeg-léeg nga dégg ñu ne xéewal yi yépp xéewali diwa loolu njuumte lu mag la xéewal yëpp sun borom tabaraka wa taala la jóge diw ma ngay wax lam am ci xéewal suñu borom tabaraka wa moo ko jox xéewal kon xéewal ci sunu borom tabaraka wa taala lay jóge te borom bi tabaraka wa taala bu la waxee ne boo santee ma dolli la ndollilul sunu ndollenul sunu borom tabaraka wa taala yëmut fenn yëmut fen kon loolu ci la jullit bi war a nangoo sonne moo tax Omar ibnu Abdul Aziz daf daan wax ne xéewali yàlla yi dañ koy yeew ni nga yeewe sa jur sa jur gi nga am muy xar yéeg ba yéeg nag yi boo leen dul yeew dañuy rëcc dem nee na xéewal dañ koy yeew ñu ne ko nuñ koy yeewee mu ne mooy sant sant sa borom boo dee sant yàlla yaa ngi yeew say xéewal waaye boo ko santatul rek mel na ne danga koo wëtal day dem yoonam juróomeelu sabab bi moo di nit ki yëg ci boppam ak ñàkk mu metti lool jamono tiis lool yan ba diis lool ci moom na jàpp ci sabab yi yëngu def lim man waaye loolu mu delloo ko boroomam jamono yi may jóg di waaxu di dem fi nit di wut dara sax na gëm ne ci boroomam tabaraka wa lay wut lu mu am moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na koo xam ne day ñàkk gu tar dafa wàcc ci kawam mu yaakaar ci nit ña kese kese nee na ñàkkam googa du dañ du dañ mukk ndax nit ñi nga ci yaakaar ñoom dañoo ñàkk ay fuqaraaw lañ yaa ayuha nnaas antum alfuqaraaw ila allah wallahu huwa alganiyu alhamid yéen nit ñëpp ñu ñàkk ngeen kon boo ci yaakaaree nit nee na sa ñàkk du dañ waaye nee na koo xam ne ak ñàkk wàcc na ci kawam mu yaakaar ci boroomam nee na kooku boroom bi tabaraka wa taala dana ko wërsëgal léegi wala mu wërsëgal ko gannaaw ay fan maanaam lu léegi fi saasi wala dana ko wërsëgal ak lu mën a xew xadis boobu xadis bu wér la kooku nag su ko jullit bi xasee xam day yëg ne ñàkk gi nekk ci moom wala aajo jim am kii ko ko mën a fajal kenn la mooy boromam tabaraka wa taala moo tax buy jóg di seq ay jéego di waaxu di demit moo xam day liggéey walla day dem di sàkku ji ba sax ci nit ndax loolu itam loolu daggan la faaxa mu ñàkk bu tar bu mu wàcc ci yow te gisoo beneen bunt sañ ngaa dem ci sa mbokkum julli ne ko aajo woonaa nangam loolu s terewu waaye jamono yam koy defit nag dana gëm ne lam fay jële ci boroomam la jóge ndax moo ko wërsëgal kii te moo ko yombalal ci xolam ba mu jox ko ko su noppee nag dana ñaanal kooku dana ko sant waaye fekk ma ngi ko teg ci kaw cant ga muy sant suñu borom tabaraka wa taala ndax it nag ku dul sant nit ñi doo sant yàlla ku dul sant nit ñi du sant yàlla nit ki lim la defal sañ nga ko cee sant <coughs> bokk na ci sabab yi nga xam ne dañuy andi wërsëg yi itam yokk ak bokk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ca xadis boo xam ne Buxaari moo ko génne mu ne ku bëgg ñu yaatalal ko wërsëgalam wërsëgam man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi ku bëgg ñu yaatalal la sa wërsëg loolu moom ñépp a ko bëgg wa an yunsaa lahu fi athari ak mu am ay jeexit yu bari yum fi bàyyi yu koy amal njariñ ëllëg nee na fal yasil rahima na jokk ak bokkam jokk ak bokk nag dafa doon loo xam ne nit ki mënu koo def te fekk xamul ay bokkam moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci beneen xadis mu ne taallamu min ansaabikum ma tasiluuna bihi arxamakum xam lu leen ci seenu bokk loo xam ne da ngeen ci mën a jokk seenu bokk maanaam ki nga bokkal dara nga xam ko xam ne kii lii laa bokk ak moom kii sama doomu nijaay la kii sama doomu tànt la kii sama nangam la bokk googu faaw nga jéem koo xam ndax soo ko xamul doo ko mën a jokk dëgg la rafetal jëme ci nit ñépp lu baax la <coughs> waaye nag rafetal jëme ci ay bokk dafa amaat yoolu boppam boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala daf ko soññee daf cee soññee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal jullit yi ñu def seen kem kàttan ba rafetal jëmale ci seen mbokk yooyu rafetal ci ñoom nag boo ko waxee liy jiitu ci xeli nit ñi mooy jox leen alal dëgg la looloo ngi ci biir waaye du lool dong ndax du ñëpp mën a joxe alal soo mënta joxe alal it jóg seeti leen mënees na ko nemmiku leen nit ka feebar nga dem seeti ko nit ka faatule nga ñëw jaale ko nit ka nekk ci naqar nga ñëw dalal xelam nit ki nekk ci mbégte moo xam ne mbégte mu dagan la nga ñëw fekkee ko bokk ca loola loolu lépp ci jox ku bokk ci la bokk kon jokk bokk bunt la boo xam ne bu yaatu la boo xam ne tënkuñu ko ci rek ne faaw nga yëkkati alal jox ko ndax su doon loolu <coughs> ki ñàkk yorul alal jum joxe day daal di wax ne man mënatumaa jokk sama bokk waaye nag ñëpp a ko mën kenn ku ne am na loo xam ne sa diggante ak boo ko defee mën ngaa jokk bokk googu kon nag kooku ginnaaw ci yokk wërsëg la te bari tuyaaba lool jullit bi war na ko bàyyi xel bu baax a baax sabab bi ci tegu mooy joxe ci yoonu yàlla al infaaqu fi sabilillah loolu nag bu ñu ko waxe mooy joxe joxe boo xam ngir yàlla rek moo tax ci alquranul karim bi tabaraka wa taala na lu ngeen dépassé danaa leen ko wutalal wa ma anfaqtum min cheyin fa huwa yuxlifuhu lépp lu ngeen joxe borom bi tabaraka wa taala dana leen ko wuutalal wa huwa xayru raasiqiin ñii wërsëgale ñépp borom bi tabaraka wa taala moo ci gën moo ci gën a tabe moo ci ëpp it man manu wërsëg moo ci ëpp man manu wërsëg ndax kat nit moom man manam xat na lool man manam xat na lool su xëyoon rek bëgg a wërsëgal ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñu teew ci jàkka ji mu bëgg leen a añal ñoom ñépp rek bu wëtuwul dana ca lot xam ngeen ne yonent yàlla Suleymaan la ko daloon ba mu ñaanee boroomam ne ko dafa fas yéene ñi nekk ci suufu nguuram ñépp mu dundal leen weer suñ boroom dana ko mënoo ko mu ne ko may ma kon fukki fan mu ne ko mënoo ko mu ne ko may ma benn bis mu ne ko mënoo ko mu ne ko may ma ma añal leen ñoom ñépp suñ boroom ne ko jéemal <coughs> mu defarlu ci xeeti ñam yu ñuy togg loo xam ne jéggi na dayo mooy foofu borom bi di waxe ci suratu saba yaamaluuna lahu ma yashaau min maxaariba wa tamasila wa jifaanin kaljawaabi wa qudurin raasiyaat jinne yi nga xam ne ñoom la yàlla tàggatoon ñu koy liggéeyloo mu defarloo leen ay cin yoo xam ne dañoo toll ne bassin yi ñuy def ndox ba noppi nag ràngale ko mu doon koo xam ne dangay xool ba fa sa bët yem lépp doon ay cin ak i ndab yuñ koy yàq ndab yi sax ñoo toll ne bassin yi ndab yi nar a lekke waaye cin ya moom jéggi na dayo <coughs> ñu xëy di togg di yàq di togg di yàq ba waxtu wa jot biñ àggee ci ñépp ñu woo leen bañ teew nit ñeeg ginne yéeg fas yéeg bëy yéeg ñépp ñoo xam ne ci nguur Suleymaan lañ nekk ñu toog di xaar añ Suleymaan waru fasam di dawal di romb cin yi di xool ni mu tolloog yéeme gi fi mu delsee buy bëgg a toog di wax tàmbali leen añ mala bu tuuti génn boo xam ne mosu koo gis tàllal aw làmmiñam mar benn yoon rek la nekkoon ci cin yi yépp jeex mu geesu Suleymaan ne ko hal min mazid ndax dara desati na loo xam ne mu ngu fu won ko ne ko réggut kéemaan gu ko sunu borom tabaraka wa doon jàngal la ca nag la Suleymaan ak keneen ku dul moom xame ne ndeketi wërsëgal li ne ci kaw suuf di daw yàlla rek ko man wa huwa xayru raziqin mooy ki nga xam ne moo mën a wërsëgal ñëpp lam doon jéem ka lekk ñam wa ak la muy bari bari moom ci boppam réggul ña fa teewoon ñëpp faf diñe nañ kenn añul far kon xam na ne sunu borom tabaraka wa taala miy dundal kookee ak ñeneen ñu dul ñoom ak ñi ci kaw suuf ñëpp kenn ku ne boo xëyee am loo lekk kooku rek moo woomal kon buy sàkku ji wërsëg kon mu yëg ne wala muy dundale ngir yàlla bu ko nee fa huwa yuxlifu bu ne loo joxe danaa la ko joxaat kooku war na koo mën a gëm kon joxe ci yoonu yàlla lu ama am solo la li ci ñëw ci ay aaye alquran ak li ci ñëw ci ay xadis kenn xamul nu mu borom bi tabaraka wa taala yonent bi nee na wax na ne yow doomi aadama <coughs> dépenseel danaa dépensé ci yow maanaam joxeel danaa la jox anfiq unfiq aleyk loolu mooy joxeel ci yoonu yàlla man maa lay jox kon ki xam loolu du ragal du ragal ak ñàkk moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa <coughs> bokkoon na ci ay melokaanam ñu ne daf daan joxe joxe koo xam ne ragalul ak ñàkk ataa man laa yaxsha al faqr bu xase bay joxe day joxe rek bu doon jeexit day jeex waaye day joxe yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci xadis boo xam ne ñu ngi ci buxaari muslim nee na bis bu set bis bu yàlla sàkk am na ñaari malaaka yu taxaw menn mi li muy sàbbaale maanaam li muy wax suba ak ngoon mooy yow yàlla ku joxe yàlla na nga ko jox yow yàlla ku joxe yàlla na nga ko jox loolu rek muy liggéeyam moom saa bu xëyee ba keroog jant bi so mu wàcc meneen mi ci des li muy xëy di wax yàlla ku denc yàlla na nga ko xañ yàlla ku denc yàlla na nga ko xañ maanaam bul ko joxati ba keroog jant bi so ñaari malaayka yooyu loolu mooy seen liggéey kon nag joxe ci yoonu yàlla ndax nga bokk ci ña malaaka yi ñaanal borom bi tabaraka wa di la jox moo gën nga bokk ci ñi nga xam ne malaaka yi dañ lay ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa bañ laa jox yonente bi alayhi salaatu wasalaam mas naa jox bilaal alal ju bari di ko ko séddale <coughs> muy joxe rek di joxe di joxe ba mu yàgg mu geesu yonente bi sallallahu alayhi wa xam naa bëgg koo wax ne ko kër gi dara naru fee des buñ joxee lépp mu ne ko anfiq yaa bilaal bilaal joxeel wala taxsha min dil arshi iqlaala bul ragal ak ñàkk wala ak néewal boo xam ne day jóge ci suñu borom tabaraka wa taala waaye joxeel li feeg yaa ngi joxe te ngir yàlla tax bul ragal na ñàkk day ñëw fa mbir may nekk kay mooy joxe nag te ngir yàlla taxut ndaxit it mbir yi leen lu ne dafa am sart buñ ko teg boo xam ne su ca àndee rek da gis loolu jullit bi am yaqiin ci mu xam ne yàlla moo tax muy joxe yàlla xam na ne bu joxe woon li mu am lépp balaa suba dana amaat du du du mukk ñàkk du ko dikkal ba mu toog yor loxo keseem amatul lu mu lekk ci kaw ne dafa joxe ngir yàlla la mu amoon soo gisee mu joxe dara dikkaatul rek xamal ne am na lu xew joxe na ngir nit ñi ne moo tabe wala joxe na ngir di nangam wala nangam yoo xam ne ngir yàlla taxut kon jullit bi foofu la war a nekk bokk na ci it nag yi indi wërsëg mooy rafetal jëme ci ñu ñu néew doole ñu néew doole néew doole mën naa doon ci ak ñàkk rafetal jëme ci moom mooy boo ko tanee nga dimbali ko néew doole mën naa dem ba ci sax ci silmaxa du gis rafetal dimbil jëme ci moom jàpp ci loxoom ne ko wattul lu lay gaañ a dem ba gis ki nga xam ne xelam neexut nar nañ koo nax nga jàppale ko ba kenn naxu ko bunt bu yaatoo yaatu la ku la gën a néew kàttan ci dara nga jàppale ko ca loola ca la nga ko tanee kooku mooy al ixsaanu ila duafa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ni ko Mus'ab nettalee doomu Saad ibn Abi Waqaas nee na Saad dafa amoon alal ba gis ne moom mii am na lum dese loo xam ne mën na cee joxe mu laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mën na ci dimbali ñu ñàkk ñi lii la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ko hal tunsaruuna wa turzaquuna illa bi duafaikum ne ko yàlla ci lii rek la leen di dimbalee ci la leen di joxe alal jàppale gi ngeen di jàppale ñi néew doole ci seen biir ci loolu la leen yàlla di joxe wërsëg ci la leen di jàppale itam dimbali leen kon dimbali ku néew doole bunt bu yaatu la waaye ci yi indi wërsëg ci la bokk bokk na ci yooyu yëpp nag ci ki mat a takk soxna mu wóor ko ne am na lu mën a yor jabar mu bañ a jàpp ne lii mu yor tam doon lu néew bu takkee soxna ñàkk da koy dikkal duutu am lu mu dunde ak lu xale bi dunde borom bi tabaraka wa nee na wa ankixul ayaama minkum wa saalixina min ibadikum may seen jigéen ña fa nekk ay boroom kër ñu baax na nag la wax ñu baax ñett te doon ay fere yu nekk ca seen kër te doon ay góor may leen leen ay soxna mu ne in yakunu fuqara su fekkee ne dañoo ñàkk yughnihim allahu min fadli yàlla moo leen di jox am koom ci ngëneelam omar ibn alxataab radiallahu dafa daan wax ne yéem naa koo xam ne dafa yëg ak ñàkk te demul wuti wërsëg ci takk soxna te demul wër wuti wërsëg ci takk soxna ndax yàlla nee na in yakunu fuqaraa yugnihim allahu min fadli su ñàkkee yàlla dana leen defal xéewal da di nag mbir la moo xam ne laaj na bu baax a baax taxaw seetlu ak wut ay sabab waxuñu nag koo xam ne moom yorul dara dara ba noppi yor ak taayalu boppam liggéeyut jàpput ci sabab yi daal di rek damay takk soxna toog asamaan si dana taw wurus ndax yonent bee ko waxoon déedéet li nga yor mu doon lu tuuti nga xam ne mën nga cee takk soxna man cee am foo dëkk ndax yonent bee ko wax ci beneen xadis de yaa ma'shara shabaab man istataa minkum al-baa'ata falyatazawwaj yéen ndaw ñi ku ci mën a takk soxna am kattanam am am amam albaatu mooy làmboo kattanuk yaram ak kattanuk am am waaye liñ la bëgg a wax mooy ni nit ñi di xalaate tey nga xam ne nit ka da lay wax ne bala maa am soxna damay am liggéey boo xam ne xam naa sama salaire ñaata la am naa kër goo xam ne sama kër gu ma moom la am naa nangam am naa maanaam daal ci ñi ëpp xaalis laa bëgg a bokk ci nit ñi door a takk soxna loolu la lislaam di bañ am nga loo takke am nga foo dëkk moo xam yaa ko moom wala da nga luy am ngeen lu ngeen dunde ñetti fan tawakkal ala allah wakkilul ci yàlla te takk soxna su fekkee ne aajo woo nga ko te nag am jom nag liggéey ndax kenn ku nekk xam na ne soxna kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee mu ne nekkee célibataire waaye nag bu xasee ba ab yan tege ci sa kaw nga yëg ne yor nga responsabilité bi yor soxna